jeexital ba résultat bi gisuñu ko parce que ñun élément facteur yooyu lañ génne gis ni moom am na si xaw ma nag euh, président moom xaw moom lan moom je crois que loolu c'est très important président d'ailleurs boo xoolee sax boo xoolee ñi nga xam ne intervenir nañu on a comme l'impression que ñoom waxuñu ci réalisateur yu bees yi mais ci seen est-ce que bu ñuy réaliser nañu wax nañu xool li population yi soxla dëgg ñu réaliser ko. très bien bon xam naa euh, député yooyu ñu doon jox ay bon d'enlèvement yooyu jamonoy Abdoulaye Wade la waaye ñun moom sunu jamono Macky Sall mu boolewuñu ci ñu doon jox ay. non amu leen moo tax yéen punit lañ ko joxoon ah, mënu leen woon gis dara. ñun moom wax dëgg yàlla sunu yoon nekku ci yëgul <laughs> important parce que. Euh, Euh, gis nga booy gouverner gouvernance moderne mooy bu fekkee dangay def def nit ñi dara da nga ciy waxtaan ak ñoom laaj leen li nga leen bëgg a defal présenter leen ko expliquer leen ko bu fekkee d'accord nañ ci xayru bu ñu ci d'accord ñu modifier ko améliorer ko su ko defee dañu yëg am am ba waaye su fekkee yow da ngaa bëgg toog ndakaaru di décider ñu dëkk podoor wala euh, nam tuddati feneen lu mel nii rek lay jur autrement dit c'est-à-dire cette gouvernance verticale nga xam ne président day toog fële di di ko li nit ñi bëgg loolu jàpp naa ne tant que bàyyi wuñ ko day am un malentendu entre ñi nga xam ne ñooy yor réew mi ak ñi nga xam ne ñooy ñooy borom réew mi que bu ñu ko ki fàtte nag borom réew mi moom mooy askan wi du président la république kon encore une fois jàpp naa ne loolu lu matal la bi des na mooy euh, tournée bii wax dëgg yàlla man rafetlu moom xam nga tax Babacar ah, yow nit ñi ñoo la fal ah. di la fay weer jox la seenu xaalis ni la liggéeyal ñu ci nga liggéey ba noppi jox li nit t wala mbubb dugal leen ci wata ñëw teg leen ci naaj wi pour ñu feccal lay gërëm la Babacar démocratie bu la aw askanam eh. du def lii lii doo ko gis États-Unis doo ko gis France doo ko gis fenn parce que foofu ñooñu dañoo respecté doomu adama encore une fois li si Ahmed Tidiane daal wax naan lu xewi ak lu araam ñoo yem c'est-à-dire que ay président bi bu ñuy accueillir muy inauguré loolu dañ ko war a dindi ci réew mi te li professeur wax sax yàgg na foofu parce que jour ordinaire bi yi mooy bi yi des mooy nee na tournée <laughs> économique lay def Babacar <laughs> ah. man seetaan naa lépp démb démb moom <laughs> tournée économique bi mu dem stade ba ñan ñan la fa nekkal politiciens yi maire Podor ak président conseil départemental ak administration yi tournée économique boo ko def da ngay rencontrer les acteurs économiques muy baykat yi sàmmkat yi nappkat yi artisans yi waxtaan ak ñoom seen i jafe-jafe. les acteurs de développement. acteurs de développement waaye dem ci meeting ñu naan lay ah, gongo yow yaay waa ji loolu kay sëñ bi du tournée comme tournée politicienne la. te nag damaa jàpp ne fii si réew mi toll ak fi ñu génnee mbas mi mbëkk mi mbënn mi mbës mi lu mat juróomi téeméeri gone faatu ci géej gi junni nit faatu ci mbas mi économie bi presque sooy président bi war naa tal lu dut di def déambulation di taxawaalu dem ci biir réew mi di ko. Moustapha boo atul ñu jiiñ la dara de. <laughs> loolu loolu c'est inacceptable maintenant ci biir waxtaan dégg naa Baba Maal mu wax ne dafa bëgg université man d'accord naa ci. Aïssata Tall sax wax na ko. waaw mais université pour man c'est une bonne chose maintenant Baba Maal dafa wax ne nañ ko tuddee Cheikh Omar. c'est ah. bien ah. nañ ko tuddee Cheikh Omar am na ñeneen ñu ne nañ ko tuddee Thierno Souleymane Baal ñeneen ñu ne Abdou Khadir Kane waaye li ma bëgg mooy alpulaar li mu leen defal kenn defalu leen ko. c'est lui qui a créé Euh, harmoniser la. li mu defal al alpulaar kenn deful leen ko li mu defal pour. l'unification des peuples de Sénégambie bi. kenn defu ko ci réew mi. Hmm. je dis tamaa damaa ci pël yi li mu leen defal laa wax de ñëw nag ci réew mi. l'unification des peuples sénégambiens li ci collectivité bi pendant trois siècles kenn defagu ko ci réew mi malheureusement nag du fait de l'islam ginnaaw ñoom ci ceddo yi lañ bokkoon. dëgg la te ñu xeex ak borom borom l'islam ji tax na nit ñi. ñu suul leen. dañu ne néewul doole histoire u Sénégal histoire u Sénégal la. Kuli Tengala ci la bokk. Thierno Souleymane Baal ci la bokk Abdou Khadir Thiam ci la bokk. dëgg la Cheikh Oumar Foutiyou ci la bokk. loolu lépp na ngay boole mu nekk histoire u Sénégal kon bu ñuy tuddee université. naam Cheikh Oumar war nañ ko mën a tuddee lu baax la. Euh, Thierno Souleymane Baal lu baax la Abdou Khadir Kane lu baax la waaye bu ñu fàtte nag Kori Tengala c'est une figure de proue de l'histoire du Sénégal merci beaucoup président merci beaucoup waaw Baba ma tànk laajte benn tooñ ci tuuti waaw sama président bi yow tournée bu njëkk ba fa nekkoon ban ti ma Sall jëkkoon commencé. boobu nekk ah, fi woon gis nga Fatou en tout cas man <laughs> meeting. <laughs> tournée non président aéroport gunge président aéroport mosuma ko bëri sans problème. non Fatou ko meree nag. <laughs> de façon li mu wax moom discours discours mën nañ ko woowee tournée économique. mais discours discours politique ci télé bi. discours politique laa wax. man discours politique non bi mu fi jëkkoon def bi mu doog a. parce que nee na dem woon si biir. lu tax lu tere lu tax nekkoo fi woon. Fatou waxuma loolu. non non Fatou Fatou Fatou. nekkoon Sénégal